ci réewum Sénégal yàlla muccal nu ci wopp ji di coronavirus képp koo xam ne daal na la nga nekk ci la lu lopitaal yi ñu ngi lay sedd ñaan yàlla muccal la waaye képp koo xam ni it wax dëgg yàlla daal di dañu lay teste nga daal di négatif nga nekk ci quatorzaine jamono ji ñi ñaan yàlla musal la ci wopp gi bu mu egsi si yow ñi nga xam ne nag faatu nañ ci ñu ngi leen di jaale di jaale seeni mbokk waaye tam ñi nga xam ni jamono ji nag wax dëgg yàlla ñoo ci wér it ñu ngi ñaan yàlla yàlla yokk seen sutura ndax wér ci corona beneen problème mooy commencé waat ci yow ndax nit ñi dañ lay stigmatiser ak yooyu kon nag ñu ngi ñaan yàlla yàlla na yàlla muccal ñëpp saafara ñëpp député yaay jàlloo suñu xel mi ngi ci yow Abdourahmane soow bu COS M23 yow xam nga man xam naa yàlla na la yàlla yëkkati ak jàmm ak salaam ba yéen ñëpp ngeen duggaat ci seen ay mbokk képp koo xam ni yaa ngi ci centre de traitement yi centre bu mënti doon ci biir Sénégal ak fii ci Ndakaaru ñu ngi lay masaw waaye tam di seet sa jàmm yaram di ñaan yàlla rek yàlla yàlla na leen yàlla muccal yéen ñëpp ñun daal ñu ngi fii waaye ñu ngi de tout cœur ak vous fas leen yéen a wéttali ci centre yi ndax itam yéen a ngi suivre émission yi yéen a ngi xool nag lan la ñuy wax waaye nag lan la ñuy def suñu xool suñu jëmm suñu xalaat lépp jébbal nañu leen ko di ñaan yàlla yàlla na leen yàlla muccal yàlla na leen yàlla muccal yàlla na leen yàlla muccal ci barki barke Seydina Mouhamed sangu-sang yi ñoo ngi nuyu ñëpp di ziar ñëpp euh, Pa Ousmane maa ngi leen nuyu waaw dina delloo nuyoo di la wax na namoon nañ leen bu baax a baax mantulaay macha allah bu ma la gëjee gis rek dama lay nam ma nam ma xam nga dama takkal morso. <laughs> damay gelu damay gelu <laughs> damay gelu terme laa la <laughs> mm, ma nga koy kajoor kajoor laa la kajoor mi ngi di ziar borom kajoor di ko nuyu bu a baax baax da ngeen a bokk kajoor nag da bokk kajoor mm-hmm. yéen ñaar ñi da ah. bokk ah, kajoor de ah kajoor nag mu mosoo xam loolu xam nga jodi gisante wuñu nga la mhm. leen na yow keroog ba maam siidi sa sëriñ ba di nekk Seydina Limaamu keroog fu mu ko fekk nga xam. nga xam walaay kay kajoor ak mooy kajoor la. Ah, ah, ah, ah ba ko ba ko bàyyam bi ne ñaari kuy mënuñoo bokk mbal. waaw fala nga xam la gàddaay dem naa nga xam nga xam kajoor la. jeex na ba mu trois ans la fa am. histoire neex ñëw ñëw si bàyyam. walaay dëgg 1906 kay moom fa dem fekk ci moo dëkk xam moo tax mag ñi kenn du ñoom. kenn du ñoom bi am tëddee ba xam ne lii yaakaar desut ji si naa ma joon yónnee ndaw na ko demal nga ne sama tataaw ba baay ba sama xalifa ba na ñibbisi ndax lii jaaxal na ma xale bi bi muy kii ndaw bi muy départ kaw bi muy départ yoof mi ngi bàyyi góor gi tëdd mais bi muy ñëw ci yoon bi góor gi wuyu na ji wuyu na boroom mais ki doon ki doon wax Seydina kii Seydina maam Seydi ne ko euh, góor gi dafa dafa tëdd bi mu egsee maam Insa moo ko tàgge góor gi te téléphone boobu amul mm-hmm. gis nga ci yoon bi nelaw na ci yoon mu ñëw ne ko góor gi dafa dafa feebar mu ne ko góor gi nelaw na ndax dafa tëdd ngaa xam jant jant ñëw socc ci kawam ci kawam jant bi bi ruu gi jógee ci ci ci baayam fii ci yoof daa dem ca ngaa xam socc socc ci ci biiram moom jant bi mu xam ne kon baayam jógee na fa moom moo war a wutu baayam mu départ na septième te Tiwaawan ah aca ga sixième gare cinquième gare ba ba ba sixième bi foog na fa lay fa lay wàcc non deuxième gare Caaroy mun a yaraax laay wàcc ba wàccee yaraax fekk fa laa yu bëri daal di taxaw di nekk mun a ñii luñ fii def ñu ne kon ñii nee nañ Seydou euh, yonent yàlla Insa tey la war a wàcc fii ci yaraax ndeysaan ca ca simple ga ca nëbbutu ga nañ poto nañ potoxlu gaaw gaaw waaye làqatu dem ñu ñuy tudd Insa te làqatu ga te fekk ne yëpp mënta làqatu ba bañ xam ne moom nekkul nekkul moom nga de kon mi ngi noonu kon ñetti fan après de ba mu mm, jeex na ajjuma samedi dimanche la ni mu daal koy rob boobu seen ama ñoom mi ngi fekkewul woon rob ba rek yéen du moom <laughs> ay am dëggal na woote ba mu yéeme trop kon yéen a bokk Kajoor di leen ziar baax a baax baax waaye dem ba France paam kii medun Médoune Pa Médoune sama jarbaat la mi ngi foofu ci France Pa Médoune sa sa sa maam moo lay souhaité joyeux anniversaire daf naa noonu de. Mhm. souhaité joyeux anniversaire maa xam dégg ma tutuwaam. mu ngi lay ñaanal yàlla yàlla guddal sa fanam. yàlla guddal sa fan bu baax a baax a baax yow umpa um, um, um, um sa sa maam ñu ñu mi ngi koy mi ngi la koy ñaanal bu baax a baax Pa Médoune foofu ci France di ko ñaanal képp ko fa nekk di ziar ñëpp di wax ne. altu gëñëg altu gëñëg tam du ñu Tafa Yàdd moo fa nekk waa altu gëñu ngi yëpp ñu ngi leen bu baax a baax a baax man son français dafa xóotul moo tax souhaité joyeux anniversaire moom dama <laughs> naan yàlla yàlla guddal sa sa yàlla guddal sa fan rek pa mbedum sa maam umpañ nday ja nday ja mu ngi la koy ñaan bu baax a baax man français la ma ci jàng bëriwul un bon chasseur doit savoir chasser sans son chef laa jàngoon xam xama noonu la ma ko boobu noonu njaga man mënu ma lay fay Mantoulaye di am mbégte di bokk yow émission bi saa su nekk di nuyu Sénégal gi yëpp waaye di nuyu ambassadeur Guinée gi Pa Ousmane li may wax ni macha allah bu ñëwee rek mu xumb tabaarakallah yal na yàlla lafal cat mm. eh, di nuyu suñu préfet bi Jibi Diallo di ko sargal di ko ñaanal yàlla wér di ko ñaanal yàlla yokkute ak ndam waaye di nuyu suñu sang ba Serigne Khadim Ibrahim Lo Gaydel borom ndaam di nuyu waa France Italie mhm. diaspora bi mhm. Gambie Mali Gabon macha allah ñëpp dañuy woote di seetaan di seetaan li nga xam ne moom mooy moom mooy moom mooy moom mooy émission bi dina yow tamit euh, suñu xarit ba noox ca marché Gambie Colobane fàttewuñu kenn di ñaan yàlla yàlla wayefal ñi si hôpitaux yi yàlla la tamit euh, libéré ñi si prison yi euh, yàlla def ci suñuy poste dara mhm. def ci wér ak jàmm amiin mhm. rafet na trop macha a mhm. nag may waaj a takk ñaareel <laughs> ngi lay remercier bu mhm. baax a baax borom global textile nekk fi nga xam ne moo di Parcelles Assainies boo passé sapeur yi rek côté sa sa droite la lay daal di féete euh, moom Assane baax ci ñun lool wax dëgg yàlla di partenaire ko waxtaane ko di nuyu nag euh, sama yaay euh, Tamarem ñang maa ngi lay nuyu bu baax a baax yaay booy Eh, di nuyu eh, Papa Talla ak njaboot gi yëpp foofu ñu ngi leen di nuyu di leen ziar maa ngi leen nuyu bu baax baax tànn Marème nuyu nag sama yaay ju baax yoo xam ne ma nga France eh, di tànn Marème Mboy ah, tànn Marème maa ngi lay nuyu bu baax a baax a baax yaayu bintaay yaay ndey Ami Ndour maa ngi lay nuyu bu baax a baax Ndeye Ami Ndour ah, di la ndokkale nag ci turandoo bi yàlla na dundute am ndey ak baay ah, Ndeye Ami maa ngi lay nuyu bu baax a baax a baax a baax sama xarit wax dëgg yàlla ma dem France mu teral ma lool baax lool su ma amee naqar da caa gaaw lool nag moom ndeyam mi kon yal na la yàlla sàmm bàyyi la ak njaboot gi eh, ñoom Idrissa ak ñoom Mohamed ba ci kanama ak kanam ak yaay booy moomu noonu di nuyu nag sama tante sama tata bu baax ci man eh, tante Rama Thiam maa ngi lay nuyu bu baax a baax waaye madame Thiam eh, madame Tall Tana bu Thiam maa ngi lay nuyu bu baax a baax sama yaay bopp jooju nga xam ni moom it yàlla du jug ci ci man ci xelal ak ci yeneen donc yaay booy dama lay nuyu di la jox sa sa wàccuwaay di la ziyaare bu baax baax préfet ji bi wax nga ko mm-hmm. ñu ngi koy nuyu bu baax a baax sama préfet bopp la donc monsieur le préfet maa ngi lay nuyu di la jox sa wàccuwaay di nuyu ñëpp ñi nga xam ne dañuy farataal euh, di euh, suivre émission bi Daba Thiam maa ngi lay nuyu Alexis ak itam njaboot gi yëpp fii Sénégal ñoom jagle euh, ak ñëpp di leen nuyu di leen ziar di wax ne nag Pa Ousmane dañuy soobu rek ci suñu ko mhm. thème thème boo xam ne wax dëgg yàlla semaine bi yëpp metti na lool ndax liñ ciy dund ci émission bu jeexee sax moo gën a métti bari na ñoo xam ne jaga bëgg nañu génne seen dënn oh. mais neen a wax ñu émission la. après émission émission la. wallaahi boobu euh, témoignage yi ci am bëri na te léeg-léeg dañ naan noonu sax bu leen sax joxe anecdote yooyu ci télé bi ndax dañuy bañ ñu xam ni diw mi moo leen ko nettali. Mm-hmm. Mm-hmm. waaye ku ne liggéey amul ku ne njabar amul. daf la jàppul ndax ñun ñu ci dégg ci témoignage ñu koy wax ci of te dara taxul dul bëgg dindi li nekk seen dënn rek kon mën nañ gëm ni loolee lu am la ñu dem xooli kon MD suñu élément daal di ñëwaat. ci bërëb bi ñu liggéeykaay suñu tool ñun baykat ay baykat lañu sans promoteur lañ nekkoon ñoo ngi dépassé plus de 4 millions 500 4 millions cent ñoo ngi dépassé lu dépensé lu ko ëpp mais li nga xamante ni dem nañ ba toll suñ dugg liggéey fa nga xamante ni fa lay moteur bi moteur pompe bi di pompe ndox mi pour mu dem ñu ci liggéey fa lañ def liggéey boobu nga xam ne ndox du mën a demati. sëñ bi dinañ xëy cinq heures di matin dinañ ko xëy ba 19 heures 5 heures di matin ba 19 heures dañuy def amuñu luñ mën a def ba ndox bi dem. dañuy jënd ay col dix mille douze mille cinq yi col yooyu dañ koy jënd buñ ko jëndee yaakaar ni problème la ci kii bi ci tiwo yi moytu loolu problème bu kii bu nekk solution bu ñu def rek jusqu'à ñuy nodd gee man ak sama ñaari mag ak sama benn jarbaat ñu benn solution kii noonu lañ tu lañ am lañ xalaat ni lii y a quelque chose am na lu fi nekk léegi buñ ñu cee bi xoolee teen bi lañ dem fekk fa ñu def ci benn liggéey boo xamante ni liggéey bi garaaw na sëñ bi liggéey bi garaaw na liggéey boobu man suma ko dee xalaat sax sama rongoñ day bëgg a tuuru man ak man loolu nan lañ ko mën a defee doomu aadama ab jullit bokk ci xeetu Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ana nan nga mën a defee yenn yi nga def ko sa moromu jullit ndax ab liggéey bu bu demee ba ci def perkaal perkaal bu nu xaatim perkaal bu nu xaatim gura ah, gura goo xam ne kenn xamul fu mu sunguf waaw loolu lépp ñu def ko ci biir liggéey bi sunguf sunguf soo xam te ni mën ñu la wax ban façon sunguf la ci àdduna wax dëgg yàlla képp ku ni maraboutage amul daa fekk man li ma jànkoonteel man ak samay frère daa fekk dalu la waaye bu la dalee doo ko wax mukk man musuma gis lu mel noonu ci àdduna ay liggéey yoo xamante ni man mii di di wax nii man élève laa dama doon jàng waaye loolu mu yàq sama sama njàng ba ma demee ba def bac loolu mbir yooyu mu yàq sama njàng kon man xam naa lan mooy marabtaas xam naa ko bu baax a baax a baax a baax lii tey moo di ko waat ñëw fii ànd ak samay mag di liggéey loolu mbir moom tam yàqat ko encore waaw lépp ci wàllu sëriñ yi nga xamante ne nii dañ leen fay ñuy def ay liggéeyu bon façon liggéey bu nekk te yemuñu ci dem ba ci beneen bi nga xamante ne nii fa lañ beneen tool bi. ñu def ci benn liggéey boo xam ne liggéey boobu ay bëjjën béjjën benn béjjën nañu ëpp ak morso bu xong bu am ay petaaw ci biir ay pusa moo fa nekk encore ci biir ay pusa moo fa nekk ak perkaal ñu aw ñu xaatim dugg ci biir béjjën bi kii ko ñu ko awal morso bu xong bu am ay petaaw boobu noonu sama way jur bu góor moo ko sulli moo dem ba fa tëdd moom fa lañ ko ko defal ñu dem ci bërëb bi ñu liggéeykaay suñu tool ñun baykat ay baykat lañu Ndugu Belina mu ngoog euh, thème baa ngoog euh, dañu lay bàyyi rek nga daal di euh, wax ci Pa Ousmane sa xalaat laataa ñu la ñuy ubbi téléphone bi 88 628 89 90 ngeen bës 2 88 628 28 28 ngeen bës 2 33 841 20 69 ngeen bës 2 heure boo leen wootee rek ñu di seq waxtaan wi mm-hmm. man déglu naa thème bi macha allah am na solo njaga réew mi réew mi lépp def nañ ko réew mystique fi ñu toll nii Sénégal mm-hmm. réew mystique lañ ko def ngaf ngafi am noo ko amee noo ko mën di amee fu ñu toll rek ñu ngi siggante Sénégal moo toll foofu ñaga mhm. dangay dem ci kër ñun ñu dëkk ci village xam nañ ko dangay dem ci kër kër gi ñu suul fa loo xam ne ka ka fa moom am na doom ba noppi ba noppi bu yàgg am na doom jur na ba ba jur ba noppi pare ba pare ba caatlu suul loo xam ne ni kenn dootu fa amati doom kër ci ci kër bëri na kër yu am fi ñu toll nii hmm? kër goo xam ne pour nit amaat fa doom problème ndax suul nañ fa loo xam ne ni pour nit am fa doom problème la da nga gis kër goo xam ne ni tëj nañ ko ba seet du fa wàcc <laughs> kër goo xam pour seet wàcc fa problème la gis nga de mhm. yooyu yëpp mi ngi ci kër yi moo tax nga toog bi sa nga nag ba xaaju ko di dégg ku naan këng këng gas di gas di toj di toj nekk te ab liggéey dafay def moom moom lay def kër gi te kër gi kër yu bëri léegi suul nañ ko ba foo jéggi rek am na lu luñ suul luñ suul foofu noonu moo tax gis nga li man li ma gën a compte sax mooy da ngay yeewu ci kër xaw ma ndax bëri na Dakar wala déet wala ci village am na ci ku yeewu jël am ndox sotti ci véranda bi mhm. moo yu jëlee am ndox bu la sa buntu kër gi ndox ñaareel bi xëy dem sotti buntu kër gi ba ndox la te ndox mi mhm. ñoo ko fanaanoo moo tax mhm. pour nit léegi sax pour nga tekk ci kër yooyu noonu dafay jafe ah, da ngay génn boo génnul ci kër gi dara du baax ndax liñ suul ci kër gi moo ëpp da ngay gis am Ndiaga Fall boo xam ne moom suul nañ ci kër gi lépp mu ñëw daal di karo kër gi ba lépp man nag kër yi karo nii dañoo suul ba mu mat góor ga ñëw daal di karo kër gi nag ba mu mat léegi nag comme léegi nañ ci kaw kuy gàllaaja kuy toj mm. na kon loolu lépp mi ngi macha allah te tamit euh, la ma góor ga doon wax naan yàlla bu ñu ma dugal ci xaatim bu baaxul mm-hmm. xaatim dafa am mooy ñoom musallasa ñoom murabba ñoom mu xamas ak ñoom ba alfu buyut yëpp ay xaatim la macha la xaatim bu bon sax bu ñu ci dugalee wóorul ndax heure bu baax ak wala lijaaba wala nit ka ndax amul sax mayug yàlla te xamu ko ndax nit dana am mayug yàlla dana am wilaya maqaama mhm. Pape Ousmane am ko te waa mi xamuñ ko mais man am naa ko te xam ko yoon saa man mën naa kaa am te man du ma ko xam waa réew mi xam ko mën nañ kaa bañ xam man xaw ma ko ñoom xamuñ ko may def di téel ma rajax rek mhm. lu ma def rek yàlla nangu ko te boo wëggal doon erreur nag mhm. gis nga de gannaaw xaatim liñ naan sunguf am na te sunguf dafa doon lu lu lu lu lu lu efficace ndax jàpp day jàpp ci euh, ci ci alxuraan bi su nga xaadiru mook daqaar jàpp ñoo jàpp daqaar boo ko bindee bind xaadiru benn la boo déggee li may wax sax xam na mhm. xaadiru ak daqaar benn la mhm. bind araf yi yi ñoo jiitu yi yi mujj day dox ci kàttan was wa soor muy sunguf mooy dox ci wërsëg wu sóoru wu sóoru lu nekk dafa am lu muy jàpp moom am na nga dem ci jat jat tamit am na da dem ci ñu suñu mbokk yeneen xeet yi yor ab ab ab poqe naan fujara fuuta mafruuta sànjaliika kalaa nangata wala ñita ñetata mu téng téng xar leeto mu téng téng xar leegaay wala nga naan jibin nog jibaani nog jibin anta sa yaa da ngay fàtte ne boroomi nga toog <laughs> eh, eh, nank nank lépp nga toogal yooyu <laughs> yooyu jat bi dee ko éviter daal nank nank yooyu yëpp yooyu yëpp mi ngi ci nekk yoo xam ne nii macha allah moo tax ku yeba tamit wut mag moo xam ne wala wut borom signature yàgg naa ko wax signature goo xam ne da lay buuf sa kaw la waajur wax naa man de kiñ ma boole pour ma liggéey ko bu jamee ba jant bi so fu ma visé du ma ko gis fenn fu ma visé ci guddi gi du ma ko gis ndekete yoo ginaar bu nenee da cay bóof am ñoo xam seen maam boofu nañ seen kaw wala seeni waajur wala ay kilifa yoo xam ne ni mhm. kenn mënul leen dara moo tax mooy faral di wax borom signature gaa gaa jëbar am na ki mën am na am ñoo xam bu ñu defee yàlla dana ci ànd mais am na ñoo xam lu ñu wax yàlla ànd mhm. mooy borom signature maa ngi la ko exi eh, te maam Seydou mi nga xam ne maa nga ca ngaa xam te téléphone amul whatsapp amul waxuñ la ne la sa waajur dafa nelaw te yëngu ko kon borom signature am na mhm. jamono ji ñu toll nii man mi bu ma bu ma bu ma bu ma bu ma Ablaye Wade eh, woowoon ne ma kaay ndogoog wa wala kaay waxtaan ma Macky Sall laa ndax moo yor signature réew mi mhm. fi ñu toll sa papa préfet Djibi Diallo moom mooy mooy préfet bi ka fi nekkoon de ko yortul signature kon jamono ji fa am ñuy yor signature mooy nitu yàlla yi am na xam lu ñu wax rek yàlla ànd ci kon ñooñu ngay dem waxtaan ñu uuf la ñu téel a ba ëllëg jabarkat yi duñ mën ci yow mhm. duñ mën duñ mën ci yow dara ndax jabar am na dafa am na ñoo xam ne dañoo am xam-xam nag am nañ xam-xam macha allah bu ñu vise dana dal xam nañ ñu ñuy solee xam na ñuy defee lépp xam nañ ni ñuy liggéey nit waaye am na ñoo xam ne ni li jaaba lañu am ñoo ñoo gën a danse am ñoo xam ne ñoo am xabul ak lépp mais macha allah waaye tamit am na ñoo am na am am na am na ñoo xam ne tey euh, xam nga ni dañ kaa bind ci ay éléments ay dañ kaa bind ci ndox tabiam ndox safara suuf ak ngelaw yenn saa yi sax dana nekk tabiam nekk ngelaw nga daw jàppee ko ca safara nit dabim dana nekk ndox nga daw jàppee ko ci suuf ndax ndox ak suufay ànd bi ci gën a ëpp moom dañuy wax ne nit de tabiam lii la maanaam wàllu euh, lii moo ëpp ci moom waaye nit nañ kaa jàppee ci feneen am na ñoo xam tamit njaga faal mhm. ah dañoo am xam-xam ba même bu ñu la jàppee wu foofu sax bu ñu lay jàppee ci biddiw biddiw dafa am juróom-ñaari biddiw moo moo moom la yàlla di bind mu ëpp na ko sax mais juróom-ñaari biddiw ci la ñuy ci mu wër mooy mooy wër semaine bi ci semaine bi mhm. mooy dimanche lundi mardi mercredi jeudi vendredi samsu jant moo aaye dimanche xamar moo aaye lundi mardi muriixa aaye dafa ñuul mercredi xotaarit moo aaye jeudi euh, mustari moo aaye tey comme tey mais vendredi zoxratu moo aaye dimanche samedi soxal moo aaye soxal bu ñuul la macha allah léegi nag ci aaye boobu ñuy aaye ci jour yi mais teewul yow yaa aaye yaa un jour mais dana am ñu la jàppale garde bi ci garde bi dañuy dem ba càag nga ne dimanche de sams moo ay mais ci biir sams bi ci biir dimanche bi am na yun saay zuxrat day ñëw yun saay xutaarit ñëw mais nit ki bu xamee nag bis bi nga juddu wala a calculer moo tax moytul ma ki a calculer gars xadaat mooy hmm. xelmul axdaat xadaat hmm. bu ko defee de bu ñu lay fetal rek mooy mënta mooy moo tax ñuy moytu di wax nit ki lu mu gént mu xëy di ko bañ di ko wax ay noonam wala yu demee noonu wala nga bañ di wax jour bi nga juddu ndax bu ñu xamee jour bi nga judd rek mën nañ cee def yoo xam ne ni ëllëg doy na waat mais bu dee nag ma ndaw ah? anniversaire yu bari <laughs> ñëpp xam nañu ku nekk xam na sa waay anniversaire yi ak Facebook nga xam ne day nekkale rek chaque allo jamono ji waaw am na ku nekk ci ligne bi allo MD ñu jël allo allo oh dem na euh, bëggoon nañ nag teel a jël témoignage yi wax dëgg yàlla nit yi euh, daal di wax nag lañ dund ci wàllu xarfa foofu ak yeneen ndax la ñu dund bari na njaga démb li ma ci jot allo allo salaamaaleykum aleykum salaam wa rahmatullah Alma Dione ça va noo def ça va bien fi alhamdulilah Alma Dione kontaan naa ci yéen jaajëf merci waay jaajëf waay seen liggéey bi rafet na ci leen moo bëri naa bëggoon ci xéwal nu bëgg. allo alo waaw. oui ma ne ci xéwal yi laa bëggoon dañu am problème pour fay location un mois yëpp. waa léegi même numéro bi nga wootee. da ngay bës un bi bu defee nga dem ci ñoom Cheikh Sarr bu soobee yàlla la jox ci xéwal yi dégg ok. incha allah jaajëf merci beaucoup mu ngoog bu ñu mënee am tamit euh, ay témoignages ci 88 628 89 90 ngeen bës 2 88 628 28 28 ngeen bës 2 33 841 20 69 allo. alo allo oui. allo salaamaaleykum. maaleykum salaam. noo def soxna si. ñu fii. baa ngi jàmm. ñu ngi am jàmm kooku mantu. waaw ça va ça yéen a ngi ci jàmm. ñu ngi sant alhamdulilah. ñu ngi leen di sant di leen gërëm. jaajëf merci jaajëf. plateau bi yànji na macha allah. merci beaucoup jaajëf. waxtaan bi neex na madame Ndiaye la depuis Liberté 6. madame Ndiaye. ñoo ngi lay nuyu bu baax. madame Ndiaye madame Ndiaye ba amoon ngént ma demoon fa la sama doom Ndiaye da amoon ngént ma dem fa juróom-ñaar da la ma jox juróom-ñaar. juróom-ñaar mantu mantu xam nga boo amee sa ex moom la boo ko joxee juróom-ñaar baax na. nga baax na la ex sa ex sa ex. a waaw lu ne laa def ci yow en tout cas joxuma takku dun bañ la takkee li nga def rafetul de. dara rafetul de. ba pare ñëw di ko ñaawal naan ko madame Ndiaye <laughs> surtout rek. <laughs> moo tax muy làqatu. déedéet da lay ñaawal di la wan ni madame Ndiaye la waaw waaw di ma wax ni waaw madame Ndiaye la waaw. <laughs> noo def madame Ndiaye. maa ngi man yéen ci jàmm. alhamdulilah ñu ngi sant mm, ñu ngi leen di sant di leen gërëm. jaajëf merci thème bi am na solo. merci beaucoup. am na solo bu baax moom. Mhm. ndax euh, il faut ngeen wax. Mhm. comme que yéen moom boo leen waxee nit ñu dégg leen il faut mhm. ngeen wax. dina am ñu bari ñoo leen jubbanti. dëgg la. waaw ndax ni dina xëy sax mel ne Ousmane moom mu bëgg a def lu bon sax. Mm-hmm. ngeen wax mu génn ca mm-hmm. njabar gi bari na jaaram gi ñoo bari ci dëkk bi nag. <laughs> dëgg la dëgg la yal na yàlla sàmm leen bu baax. dëgg la dëgg la jaajëf. waaw di souhaiter encore joyeux anniversaire sama taaw bu góor bi nekk France bi kii doon wa sànq mm-hmm. Ousmane. dëgg la jaajëf. waaw di ko ñaanal gudd fan ak wér yéen tamit di leen ñaanal gudd fan ak wér. amiin. da ngeen wax daal leen wax daal doyul jamono ji daal yàqu na moom loo leen wax doyul macha allah. <laughs> yal na leen yàlla may gudd fan yàlla may leen taxaw bu baax. jaajëf merci Khady. Mm. Ousmane. waaw boo jaaraatee boo jaaraatee bii paa ñaari junni lay doon doon ah. nekk <laughs> am sa doomu nijaay ñu takk ko mu <laughs> bu baax. waa kay dina ko dégg. jaajëf mm. jaajëf madame euh, Ndiaye. madame Ndiaye mm-hmm. euh, Khady Sarr kon nag mu ngoogu euh, ñu jël yeneen témoignage rek allo. allo allo. allo oui. allo salaamaaleykum. aleykum noo def soxna si. ça va kooku Mantoulaye. waaw. ça va naa leen. fay nañ la bu baax a baax nga wàññi tele bi yokk baat bi tuuti ndax ñu déggante. o oh, dem na mu ngoogu dem na en attendant ñu ñu jëlaat keneen di wax ni rek 88 628 89 92 88 628 28 28 2 Sénégal la waaye 33 841 20 69 ngeen bés 2 pour suñu mbokk yi nga xam ne ñu ngi ci bitim réew euh, foo mënti nekk ci àdduna boo composé numéro boobu rek 33 841 20 69 di nga dugg en direct ci émission bi allo. Oh, dem na mm-hmm. mantu réew mi xam nga lu ma ci gën a jommal. Mm-hmm. mooy réew mi léegi Euh, liggéeyatu ñu am noon ku leen di dimbali lañuy liggéey. waaw pour mu lay jox <laughs> waaw. xoolal rek réew mi lay dimbali mantu liggéeyatuñu seen noon yi. Mm-hmm. ki leen dimbali la ñuy la ñuy de koo xam ne mm. day am yéene. Mm. jaamu yàlla ci yow. Mm-hmm. bu amee juróomi junni may la bu amee fukki junni yow nga ne lim may may de doyuluma ci. na yokk te bu mu dakk te bu mu dakk. te sax léegi sax bëgguma lool namay may. force force goo xam ne du ci ànd ak sagoom. balaa may xalaat tamit na ma jox ba pare. wallaahi wallaahi wallaahi jëlal njaga. salaamaaleykum. loolu dañu ci gis témoignage léegi allo. allo allo. allo bi salaamaaleykum. maaleykum salaam. noo def. sant bu alhamdulilah. yaa ngi maa ngi en direct Sen TV. yaa ngi en direct Sen nga yokk baat bi tuuti yow rek la ñuy déglu nag. Ah. yokkal baat bi tuuti yow rek la ñuy déglu. ay ci allo alo oui. waa acca yow rek la ñuy déglu. maa ngi en direct Sen TV. waa dama doon uh, indi témoignage rek li ngeen di wax. ayca parce que c'est la première fois may wote télé. Mm-hmm, mm-hmm. te li ngeen di wax dafa am benn importance te dafa ma xaw a touché. Mm-hmm. ndax uh, liggéeyante bi. bëri te des fois kër yi dañ suul a suul ba ñu si nekk sax bu ñu avancer problème la. c'est vrai. te mhm. ñun kër gu ñu nekk këru famille la. Mhm. dañu yàgg a def lu bon sama yaay. ndeysaan. dem ba laal ñun ñi ay doomam. ndeysaan. sama yaay nekk ak góoram yor ko ba mu génn àdduna. Mhm. ruy bi sama maam mujjee naa sama yaay ko jox mu dog ci kanamam. ndeysaan. ñu jóge ci loolu muy jooy naka ndax sama yaay moo ko yar ba mu màgg mu may ko doomam. ñu jógee ci loolu ñu. dem sama maam génn àdduna. Mm-hmm. ci yuuru daj bi. Mm-hmm. nekkite ñoom ñu ngi jugal sama sama yaay ak ñun ñun famille bi pour ñu génn kër gi ndax ñun këru famille la daa yuuru daj bi ñu dem suul benn gàllaaj boo xam ni ñoom dañ la leen ne su néew bi demee ba 40 jours demee ba tas rek sama yaay day génn àdduna topp ko. ñu dem def loolu. ba ci quarante mhm. jours bi. Mhm. ci guddi. Mhm. ba jàng yépp demee. sama yaay dafa xam. ak nooy rek daanu. Hmm. ñu yor yóbbu hôpital. ñu nekk fa nekk fa nekk fa presque def nañ fa ay vingt cinq jours man sama jàng fa la jaaroo yàqu. ñu ñibbisi ba ñu ñibbisee toog deux jours sama yaay agité waat nooyi bi aj hmm. ñu yëkkati hôpital ñu koy def noonu tout le temps ñuy dem hôpital. benn jour daal la benn magam ñëw rek benn xaritam ne kii yóbbu leen ko lii du affaire tubaab. yàlla mhm. dog ñu tegtalu si benn pël bañ fa demee. Mhm. ñu ne ñu kii du biir hôpital kooku sax moo ñu xamal ne yéen am na mbooloo bu nekkoon seen kër te du doon bànneex nakkar la. Mhm. Oh, waaw ñu ne mun nañu dañ ko def loo xam ni su dë su néew bu explosé woon rek moom day génn àdduna. Ah. mais moom li ko dimbali mu ay àndandoom ñoo ko taxawu. Ah. te ku yàlla teg loxo day métti rek ak loo mënti def. du jàpp su yàlla newul waaw. donc du du du loolu du mës a antu. wallaahi. ñu nekk ci kër gi nag gàll gàllaaj ñu indi ko fi. fu ñu dem dañ naan yéen pour ngeen avancer sax problème la ndax dañ leen a yàgg a def ci biir kër gi. samay mag ñi ngi li te ñooñu ñu ko daan def li yàlla di nattu rek ñoom ñi ko daan def. Mhm. tey jii mhm. ñoom ñooy ëlbatiku di ñëw ci sama yaay mu leen di dimbali di leen jox lu ñu toggee añ. nga. lañ bëggoon amul ñii lañu namoon amut ñii mm. mbir ma sax daa jaari këpp seen kaw ah, li ustaas bi sama soppe bi wax rek am xam ne yàlla moo leen di aar mm-hmm. am na ñoo xam ne yàlla da leen bëgg rawatina taaliba cheikh bu jël wedd mm. koo xam ne naazilil xaq bil xaq chaque jour da koy wedd mm-hmm. kooku metti rek waaye da ngeen di jéem ba sonn doo leen mën ci moom dara njaboot gi nag ñooy sonn mm-hmm. ndax ñoom fu ku ñu indi ci kër gi dañ naa liñ fi suul tant que yéen a ngi fi doo leen avant te dem jamono toll na foo xam ni doole gi peut-être amagul amaguñu loo xam ni ñu ngi tabax mais àggagul mais kenn lañuy pare suñu tabax ba génn fii loolu mooy wax ci ndax liggéey bi dafa métti ci kër gi ba nga xam ne luñ fa dugal du baax ñun suñu wàllu bopp alal boo am sax day jékki-jékki naaw du la jëriñ. gis nga defantegu lu ñaaw moom àdduna senegal gii man damaa yaakaar ni loolu rek la ñu xam ci àdduna. na. blessé. nu mu dund. rey na yaram bi yëpp. lu mu dund la lu mu dund ak lu ñaata ñaata ñooy ne ci kër ñu jël téléphone pare mënuñoo am jëkkër allo allo allo. salaamaaleykum. maaleykum salaam. noo def sëñ bi. maa ngi sant alhamdulilah. alhamdulilah yow rek la déglu. waaw man eh, maa ngi en direct Sen TV. waaw yaa ngi en direct. Mm-hmm. waxal Moustapha Ndiaye secrétaire municipal bu Kébémer. bu wax leen de nuyu Moustapha Ndiaye. déjà <laughs> bu wax dara de <laughs> Mandu raftu ko. waaw kon maa ngi nuyu ñi ci plateau bi yëpp. ñu ngi lay fay. di leen ziare. ñu ngi lay delloo ziar. am na ne nag bokku ci nuyoo bi ndax Sénégal yëpp xam nañ lim ma def. <laughs> waaw bu fi wax bu fi wax dara daal bul tontu bul bu fayu bul fayu. waaw comme comme du ma tontu comme yaa ngi may araftu du ma tontu du ma fayu. waaye maa ngi lay ñaanal yàlla na la yàlla xiir ci nga bàyyi ma rek may ma sama jàmm. waaw dinaa la bàyyi waaw nag dama ne woon rek danaa woote sargal leen yéen ñëpp. ndeysaan jaajëf. ñaanal leen di wax ne maa ngi suivre émission bi thème euh, baax na am na solo lool. ndeysaan jaajëf waaw sama doom bàjjen boobu nag yeddal leen ma ko mu may ma jàmm tuuti. ngeen accompagné bu baax a baax a baax. sama doomu nijaay la ku baax la macha allah xam naa ne moom. Mm-hmm. Euh, je passe tout mon à répondre au téléphone. <laughs> waaw comme contribution nag li may wax ci émission bi rek mooy nañ bàyyee suñu bopp yàlla. Mm-hmm, mm-hmm. ndax mbir yëpp ci loxo yàlla la nekk. yàlla ku wéeru ci nit mën naa ko pexe lool waaye. laa xawla wala xuwata illa billahi alil azim mm-hmm. mooy ku bàyyi bopp yàlla mm-hmm. yàlla dana intervenir koo xam ne nii doo yëg sax na intervenir wallaahi mm-hmm. ndax kenn mun mun mën sa kanam mën sa gannaaw am na loo xam ne fañ koy defee doo ko fekki yàlla na xam ne lépp bu xam li feeñ kon nañ góorgóorlu ci wéeru ci yàlla nañ góorgóorlu ci bàyyee suñu bopp yàlla rek ndax nit ñi kenn du lay tee def ay pexe Mm-hmm. waaye li ñu gëm rek li ma wax léegi mooy la hawla wala quwwata illa billah aliyul azim mm-hmm. te kenn ku ci nekk la ngay bañ def la ko bul ko def sa morom mm-hmm. soo ko defut rek yàlla mooy doon sa défenseur waaye bu fekkee yaa ngi pexe bi jëmee ci nit ñi ku pexe ñu jëm rek yàlla da koy antu waaye bu assuré na yow fexe wu dara lu bon wala lu ñaaw lu jëm ci kenn na rafet njortig ne kenn du fexe dara mu jëm ci ci yow ndax jéeg bi la très juste Mm-hmm. kon nag euh, nañu góor góorgóorlu te yi nga xam ne mooy aar jullit yëpp ñu ciy bàyyi xel. Mm-hmm. mooy di taqoo ak njàpp. Mm-hmm. Ah, ak aay yi nga xam ne ni moo nekk ci alquran tey sàmm nit yi. ñu koy taqoo di jàng alquran. ak di def lu baax di wax lu baax. ku ci teg sa tànk daal. bis bu nekk nag dana am ku dem te dana am lu la yóbbu. waaye dañu ñaan la ñuy yóbbu rek yàlla nañu fekk ci lu neex yàlla. dëgg la Ndiaye. loolu laay joxe comme contribution di leen ñaanal di mm. souhaiter ñëpp jàmm ak salaam. yàlla mm. nañu yàlla di xiir ci jàmm. jaajëf ko ak wax ko. amiin Ndiaye asalaamaaleykum wa rahmatulah. rajo Moustapha nuyu ñu waa Kébémer yëpp Ndiaga. Mm-hmm. Mantu euh, bu ñu demee bi nga xam ni ki lay dimbali ngay liggéey. Euh, di di di euh, mu lay mu lay may pour mu yokk loxoom nga dem a dem a dem ba militant bi di liggéey responsable politique am pour mu gën ko faral gën koo jege <laughs> mm, mm. buñ demee ba responsable politique bi di liggéey askan wi mm, ay militant mm-hmm. nga ko pour nga vooteel ko buñ demee ba employé bi di liggéey patron pour mu gën ko bàyyi xel gën programme ba wallaahi da ngay gis ñetti ñu ànd mm-hmm. di wut te seen wërsëg di benn tey tey jii saaliwu saaliwu di ñu jox suñu wërsëg. mantu ñuy ànd mu ñuy jox mu ñuy jox ba si yàgg da ngay gis ku mel ni Fall Ndiaga day daal di beru ji. daal ni ah xaar ma dem liggéey ji sëñ saaliwu ndax li muy jox Pa Ousmane ñaari junni yi mu koy jox. di ma jox ñaari junni jox mantulaay ñaari junni. man damay jox ñeenti junni. wala sax ma gën koo xirital sama bopp ngir sax ñoom mantulaay bu ñu demee li mu daan jox ma ñoom mantulaay ñu jox ma ko. ñu jël téléphone balaa <laughs> leen tuuti àll. alo allo. allo. yi yi. salaamaaleykum. waaleykum salaam. noo def sëñ bi. waaw ah, sant yàlla ba alhamdulilah. mu ngi lay ziar bu baax a baax. ñu ngi delloo ziar bu wér-wér alhamdulilah. tey rek lañuy déglu. waaw man dama bëgg a participer ci émission bi. ayca. Mm-hmm. Euh, tey nag da ngeen a indi lu am solo loo xam ni. Mm-hmm. dafa yaatu lool ci senegal léegi. Mhm. ndax dem nañ ba boole ko ci suñu dund. te muy loo xam ni lu ci mën a ñàkk la ndax euh, diine bëgg ko lislaam bëgg ko. Mhm. Euh, te e, yonent bi sallallahu alayhi dafay wax ni. Mhm. Euh, jullit jullit mooy mbokkam. ba tax na kon képp koo xam ne jóg nga di def loolu jàppal ne sa mbokk nga koy def. Mm-hmm. te yàgg yàgg bala nga génn àdduna danga ko gis. da ko mm-hmm. gis ci sa njaboot. Mm-hmm. dana ci feeñ. wa ilaa yow mi ko doon def danga dund loo xam ne dalay leer na la nga doon def moo la teg lii. kon kon euh, mat naa bàyyi xel bu baax a baax a baax ñu xam ne lu loo xam ne wàllu jullit la. waaw ah, ndax nag euh, jamono jii ñu toll sax da cee raw ndax suñ borom moom xaaratul ëllëg. Mm-hmm. lépp lu waaye leble rek muy lu baax da koy daal di jot léegi muy safaan baat euh, da nga ci daal di jot. Mm-hmm. ba tax na daal euh, nañ delloo si xel yi xam ni taxul nit ki am. Mm-hmm. teewut teewul nit ki lam war a am mu ñàkk ko. waaw kon daal tey indi ngeen lu am solo loo xam ni. dangeen koo indee ci jamono ji nga xam ne eh, mhm. dafee dafee dafee bari lool ci dëkk bi. dëgg ñu war ko waxtaanee nag bàyyi ko xel bu baax a baax a baax a baax ndax amutuk mujj. amutuk mhm. mujj te mu njariñ. wallaahi. ndax suñu borom moom képp ku mu bind ku ne bindaale naa bindaale na la ak la nga war a am. Mhm. kon bu la yàlla eh, joxe wërsëg bi nga tollool wi mu la wi la jox. nga la waaye keneen ka la ko may nang ko ko bàyyee. te xam ne loolu la ko yàlla suñu borom eh, séddee. dëgg la. waaye awma lii kee du ko am wala meluma nii kee du ni mel loolu du mm. jikkoy jullit mm-hmm. ñun nag ñu ci baree bari dañuy wax ni ñun ay jullit lañu waaye doxuñu doxinu jullit mm-hmm. waaw kon daal fii ci gàttal daal euh, tey moom wax dëgg andi ngeen daa ngeen ko indi nag waaye tey moom da ngeen a da ngeen a gën a euh, daa gën a am solo. Mm-hmm, dëgg la. waaw kon dañ leen di santaat bu baax a baax di nuyu ñaari góor yàlla yooyu ak yow soxna si bu mm-hmm. baax di leen jaajëfal di leen encouragé tamit ndax euh, yéen a ngi liggéeyal Sénégal ndax nag nit mën nga koo dimbali ci xel mën nga mm-hmm. koo dimbali ci jëf mën nga koo dimbali ci doole waaye nag man pour man dama jàpp ne ndimbal li gën a am solo ci nit ki mooy dimbali ko ci xel ak ci xalaat ak ci fi muy teg tànkam. dëgg la. waaw ba bu ba bu naroon na teg tànkam fu koy lor wala fu koy gaañ dana xalaat ne ah lii waxtaane woon nañ ko. dëgg la. Mhm. Euh, xëy na euh, arrivé na ma tey kon danaa mën a xam nan laa ciy doxe mhm. kon daal saar yu mel ni yéen moom euh, dañ leen di sant bu baax di leen encouragé. te di leen wax ni nit moom ab société moom boo ci nekkee. Mm. lu mel nii rek nga fa war a jariñ mooy di di di di jàngale eh, di yeete waaye di jariñe te yéen ci loolu ngeen nekk. waaw ñuy sant nag bugaan borom télé bi bu baax a di ko wax ni eh, fi mu teg tànkam fi la dañ koy bàyyi xel saa su ne. gis nañ liggéeyam ci fànn bu ne. dañ koy ñaanal suñu borom kàttanal ko dëgëral ko ak mbooleem ku ne ci biir sa télé seen. Euh, suñu borom defal la jàmm ju ànd ak sant bu baax a baax a baax nag xam naa euh, euh, dañuy yemale foofu kàddu yi rek di leen jaajëfal bu baax a baax am na solo ah, jaajëfal rafet na lool am na solo mantu ma daanele gis nga am na benn liggéey bu mhm. ñaaw bu nit di def mhm. bañ see dem am xelam mhm. Pa Ousmane day gone Pa Ousmane day gone ñu jël ko jox ko mantulaay pourtant na ko bàyyam jox wala nijaayam wala ndeyam jox ko ko tey mantulaay di yor Mm-hmm. ci bi muy gone benn mm-hmm. mbokk fekk fekk ko ci mm-hmm. mantulaay di yor ci kaye mantulaay di yor ci yére mantulaay di yor ba xale bi réussir Pa Ousmane bu réussir xam nga nu ñuy def ba mu dem a dem a dem ba man ba man gan li li kajoor kajoor yi naan dem ba man gan mu commencé fay euh, naar bi xorom euh, naar bi xoromam commencé or bu rafet mu jox mu defe ni mantulaay ndax démb démb kat kenn fekk ko ci woon ku woon mantulaay tey jii nii mbokk ya nga xam ne ñoo ko daan seetaan mhm. bàyyi loon kook mantulaay ci ba muy gone léppi mantu defal ko ko mhm. tey ñooñu ñoo koy dëdd rek mantulaay bëri na wallaahi koo xam ni ki yor démb ba kenn fekkul la ci mhm. tey dem nga ba man sa bopp tey defaloo ko dara jaaratoo ci këramam ñu naan diwle ak a ñàkk kóllëre du question ñàkk kóllëre dañoo jug ci ci diggante boobu xàjjale ñaari diggante yoo xam dañoo waroonoo doon benn damay wax ni réew mi de baax nañu ñëpp jug seen bopp waaye bitum réew ñu jug seen bopp kenn gënu leen boo demee petit code bii mm-hmm. ñu ñu dénk kër mm-hmm. ña ñu dénk ña leen dénk kër ba léegi ñooñu dellusiwaatuñu allahu akbar ña ñu dénk kër yi ñoo mm-hmm. moom kër yi <laughs> xoolal ma wallaahi gis naa ko def ni fii grand yow kër moodu moodu mu ka moom tabax nañu ay kër bàyyi ci réew mi ba tey duggaatuñu si kër gi ka ñu dénk kër ga moo fa des te doo doo ci ñaanlu tey ñoo ngi leen di liggéey ci ndax njaay gu ñu féetaloo da ngay gis ñaari ñu ànd bokk ndey ak baay ngay liggéey jëkkëru jàmbur te yow ki ngay liggéey yow du sa jëkkër <laughs> mu denk la kër nga nangu fexe ba nangu kër gi dootul dootul ñibbiti si réew mi c'est-à-dire réew mi ngi tas ci lu bon waaye waaye waaye damay wax ni sëriñ bi ñu ñëw ñëw sëriñ bi ñu ñëw neexal ko ñaar fukki junni sa client nga xaatimal ko mu dem yow nga jël sa ñaar fukki junni jënd say ginaar woo say njaboot ñu tiim ginaar gi mm-hmm. yow fa nga liggéeyal mu dem kooku njabootam sànko wallahi ginaar googu boo ko lekkee du rees yoon mal xiyaam mm-hmm. sëñ Ndiabare Sango di di jégalu nag ci téléspectateurs yi dañuy obligé yemale fii téléphone bi ndax euh, mm-hmm. régie dañ ma wax tiis léegi mm-hmm. mu di sëriñ Pape Malick Sy di porte parole bu xalif général di Tidiane euh, moom la ma régie wax léegi nii mu ngi noonu ndeysaan ak ci ak ak ak ak ci ak ci taal bi macha allah moom ah. lañ ma tàgge léegi régie moom lañ ma wax léegi ni ma dafa génn àdduna kon nag euh, di masaw ndeysaan mu ngoogu di masaw ñëpp jullitu Sénégal Sénégal yëpp ndax tis wi tis la woo xam ne ñun ñëpp ñoo ko bokk képp koo xam ne rek yaa ngi wax ashadu an laa ilaha illallah ashadu anna muhammadu rasulullah yaakaar naa ni yéen a bokk tis wi mu ngoo ko sëriñ Pape Malick si Euh, ci kaddu gu neex ga euh, ca kàddu gu rafet ga euh, ca civilisé ga ca macha allah gu neex ga bu waxee macha allah rek man sama xol day a ne asalaamaaleykum na mu koy waxee sëñ Pape Malick si moom nag mi ngeen di gis nii ci image yi saan moom lañ ñu tàgge léegi léegi léegi léegi di ñaan di wax ne am nañ yaakaar ci moom mhm. waaye dañ koy ñaanal rek mhm, mhm, yal na dajeeg maamam ja maam ji nga xam ne nag wax dëgg yàlla dundul woon lu dul ci rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam bindul woon lu dul moom yaakaarul woon ku dul moom moom it mu ñëw dox dox tànk ya ba tey bu ñu neen mooy porte xalif euh, porte parole xalif général des Tidiane loolu rek dal naa xel kon nag di ko jaale suñu mbokku tiijaan yëpp waaye itam di ko jaale ñi nga xam ni te ñooy jullitu Sénégal gi yëpp euh, mu di génn ak àdduna sëriñ Pam Malick si ku mën a rafetal dem na caatu sëriñ kër si ba dem na euh, ku safoon xorom dem na waaye ku tarbiyoon Cheikh Ahmada Tidiane si dem na Mm-hmm. ku mënoon a rafetal ci diggante tarixa yi bi ci mujj rek mooy masaaliku ñëw gëm fa ñëw ku mënoon a waxtaan ci lu baax dem na damay wax ni Sénégal moo ñàkk mm-hmm. ndax bërki démb la ñàkk magam ja si Abdoul Aziz tey ñu ñàkk ko yaakaar ni senegal moo ñàkk waaye adduna bi ñoo ñàkk ummatu islamiya bi moo ñàkk tiwaawoon moo ñàkk waaye tarixa cheikh moo ñàkk di ñaan yàlla xare ko ci àjjana ya maamam ja alaaji Malick teeru ko bàyyam ba sëriñ Babacar si teeru ko magam ji xamul coïncidence dafa am mhm. ndax euh, dañu naan sëriñ Babacar le vingt cinq mars la génn àdduna moom tey mu génn àdduna le vingt cinq juin nga ñaari cinq yi daje mm, bala maa jox Paa Ousmane dara du hasard mm. doomu sëriñ Babacar yëpp dañuy sëñ Babacar doomi sëriñ sëñ Moustapha Jamel nga koy tàmbalee doomi sëriñ Babacar yëpp dañuy sëñ Babacar te kenn ku nekk ci si sa dem bu ñu jëlee sa sa ci at ya nga demee wala weer wa nga demee da ngay doon kilifa gu mat sëkk. Mhm. waaye di ko jaale Serigne mbay si. ndax kóolute weesuul yaay sama kàddu. Mhm. Mhm. bi sëñ Abdou demee ñu bari dañoo jooy kan mooy doon kàddu Tiwaawan. sëñ mbay doon xalifa bi jël ko dénk ko kàddu gi mu matale ko nag. sëkk. waaye rafetal ko tamit sëkk. rafetal kooku nag bu ñu ko ñàkkee eh, dina am lu jógee ci ñun. monument monument bu jógee ci ñun. Hmm. Eh, da yàlla na ko sëriñ Babacar teeru. yàlla na ko baayam ya si Abdoul Aziz teeru yàlla na ko sëriñ Mouhamadul Mansour teeru sëriñ Habib teeru ko magam yëpp ñoom sëñ Mansour ak sëñ Cheikh Ahmada Tidiane ak sëñ Moustapha Jéemé ak ñëpp teeru ko mu doon koo xam ne perte loo xam ne fii ñu toog nii am na lu ñuy yëg loo xam ne yëg nañu ni kilifa dem na ndeysaan man moom personnellement dafa nekkoon koo xam ne dama ko sopp tam ci ci ci gi ak ci yiw gi dama ko mm-hmm. bëggoon lool di jaale nag xam nga nag man uh, bu ñu nee uh, uh, sama maam ma ba Thiam mooy sama maam kon xam nga mm-hmm. ne tarixa Cheikh mm-hmm. wax dëgg yàlla dama cee seey lool sama yaay juddu ci Tidiane ci yaru ci euh, sama yaay Mademba Thiam mooy maamam direct te Mademba Thiam ko xam-xam ak Serigne Babacar Sy mhm. euh, mu nekk ñoo xam ni euh, famille Tidiane bu mag lan di joxe wérdi di joxe lépp kon wax dëgg yàlla bu dara xewee tey ci ci ci ci tarixa cheikh bi dama naan daf may laal directement moo tax sama tonton yooyu yëpp maa ngi leen di jaal ñoom ñëpp ñëpp maa ngi leen di jaal ndax wax dëgg yàlla ñu seey lan ci tarixa cheikh ñu am ay lien de parenté lañ aussi yu jege ak nga xam ni moom moo di fami Serigne Babacar kon nag maa leen koy jaale bu baax a baax a baax di ñaan yàlla rek mu wufal ko bàyyam bu tedd boobu rek di sëriñ Babacar bi nga xam ne yaakaar naa ni fu mu ne rek mënta so rek rasulillahi alayhi wasallam sëriñ Babacar banam wali annani xad kuntu min ahli ndari wa maskani fii haala daari andari di ko jaale ñëpp li nga wax rek ndeysaan macha allah ca taar ba yaru ga ca yaru ga mbaax ga ca mbaax ga ca xam-xam ba ca boole lépp mu doon benn macha allah caatu suñ Babacar si ni mu ko waxee sànq mu tuddee ko waajuram mhm. Seydi Aji Malick macha allah yal na yàlla xaare ko àjjana yàlla yokk leeram ñu neexee tamit nekkaat doomu suñu cheikh mhm. rakk suñu cheikh la mais doomu suñu cheikh la suñu cheikh moo ko yar mhm. macha allah tey bopp boo demee bopp am nañu leen metti këru suñ cheikh ga fa la nekk bopp fa la daanaka fa euh, màggee fa la màggee moom Pam Malick mii nekkoon fa macha allah nekk ku mës a euh, am service gi depuis depuis depuis nañ ko wax lañ ko xamee depuis ndaw ba tey macha allah éloquence ga xam-xam ba yaru ga macha allah saf xorom nga yal na yàlla xaari ko àjjana kon sëñ euh, Pape Malick mi ngi noonu àddunaa yi noonu ay na maataakunu yuddukumul mawt wala kuntum fii burujin musayada kon kuy def na def lu baax ndax bu ñëwee fu mu la fekk ak lu mu mën di fekk daf lay yóbbu kon ñu ngi koy jaale waa Tiwaawan yëpp ci kaddu waa kër alaaji Mouhamadul Moustapha Sarr gin ginnaaw ñu ngi leen koy jaale yéen xalifa alaaj Kabir Sarr ñu ngi leen di jaale Pape Malick moomu te kat macha allah ñu ngi wax maamam Seydi Aji Malick di wax maam maam Abdou Amit Kan ndax moo jur soxna Asu Kan macha allah waaye kenn du soxna Asu Kan boo ñëw ci soxna Asu Kan rek wala nga ci maamam Abdoulaye Olimata Xuma rek kenn du moom Abdoulaye Olimata Xuma mi nga xam ne mooy maamam ci côté yaayam euh, bataille de Poos Koto mhm. mooy xeex ba amoon ca ca ca ca ca ca ñooro paate bajaan 1800 mi ngi nekk 30 novembre 1865 maam Abdoulaye Oulimata Khouma moo joxe woon stratégie ak guerre ba da guerre kon yàgg nañu am maam yu jàmbaare. ca la ñu waxoon nañ xaar ak armée bi bu bu ñu fekk ñooro ndax bu ñu fekkee ñooro dañuy maase la ñooro. tubaab ba mu moo dikkoon parce que boobu la joor daw na làqutu ci ca Maba Jaxu Ba nañ génn waaye nañ xaj armée bi nañu wër paate bajaan xur wi waaye na am ñu jiitu éliminer borom sarre combat yi ndax ñooñu buñ sëqatee soixante-dix personnes faatu mooy mooy faatu kon lii lu baax yàgg na seen famille macha allah waaye waajuram bu jigéen soxna asukat ku mën a jàngale dama naan moom mooy waxtaane ko wala moom mooy stratégie émission yi def yëpp dañ kaa jëlee xanaa ci soxna asukan soxna asukan waajuram bu jigéen dafa daan yar xale yar yoo xam yaru jaar yoon sëñ Mansour si taawu suñ cheikh mooy magu suñu Moustapha Sy responsable moral suñu mhm. Mansour Sy mooy taawu suñu cheikh mhm. mu ngi bitim réew mu ne soxna asukan dafa defar benn beñe mu defee beñe pare su euh, bi mag la macha allah bëgg ci mais amul droit jël ci ndax yar bi ko soxna asukan yar moom mooy euh, waajur Pape Malick mii nii mais dafa woo sëñ Babacar Sy maam ne ko maam sàccal ma beñe bi ci beñe bi sëñ Babacar Sy ne ko kon ma def ëpp di man mosumaa sàcc musuma jël lu ma moomul suñ baabu gës xoolal lam koy jàngaloon tamit son asukan yar na xale ba duñ jël luñ moomul mais suñ baabu gës xoolal ca mat ba musuma jël lu ma moomul Mansour xanaa ñu dem sa maam eh, kii leen ci rek ñaan ko ci rek maamam ñu mu ne ko yel ñu ngi lay yelwaan beñe bi ci beñe bi mu ne ko nag si nag yaa moom beñe bi yaa moom kër gi yaa moom lépp bu la neexee jël nga jël ko mu ne ko Mansour moo ci bëgg te du ma ko jël di ko jàngal loo xam ne du yoon waaye Mansour tamit yar nga ko yar boo ne ni te la soxna asukan maamu Mansour la moo nakaa yar yar boo xam ne ni lu mu neex jël lu mu neex mais mag ñi dañ daan yar yar yoo xam ne ni fu ñu la fekk macha allah boo jëfee ñu xam ne mag yar na la boo waxee ñu xam ne mag yar na kon yar boobu noonu macha allah nekk Tiwaawan nekk ci soxna asukan di waajurum wu jigéen moom mii macha allah ñu yar leen ci tamit noonu la yaroo lu mu mësa a wax du mu wax erreur la du jëf mukk nga ne pam mu jëf erreur la ku wax loo ko mën di wax tamit macha allah du tontu du tontu mukk wala buy baax lay tontu kon pam li nga noonu allah yar ba mat na xam-xam ba mat na yàlla na yàlla xaare ko àjjana yàlla yàlla yokk leeram ci barke trondoom ci barke babaayam sañ sañ sañ baaw ga si àdduna ngoog comme ni ñu koy waxee nag mooy caatu sëñ Babacar te xam nga caat moom dafa sore lool mhm. ci xolu baayam mhm. di ko ko jaale di waaye tam di ko euh, jaale sëñ Moustapha Sy nga xam ne bàyyi la ci moom euh, waaw mook sëriñ Cheikh ñoo bokk ndey ak baay kon nag euh, wax dëgg yàlla dañ koy dañ koy dañ koy daal di jaale sëriñ Moustapha Sy responsable moral bu mhm. Moustarchidine wala Moustarchidati dañu nag obligé écourter suñu suñu émission ndax wax dëgg yàlla tiis yu moom mënuñu ko booleeg lenn li des nag ci ay minutes 8MD ñu bàyyi rek ñu ñu nit yi euh, téléspectateurs yi euh, yenn ci ay kàddu yoo xam ne faral na di dégg euh, moom sëriñ Pam Malick mii mu ko daan di yëkkati ñu ñu ñu daal di ciy barkeelu rek ànd ak yéen li des suñu temps ñu may ko Serigne Pam Malick si ànd barkeeloo ko ak moom ci ci ci ci li nga xam ne mooy kàddu yu rafet yi nga xam ni yàgg na ko yëkkati ci Sénégal waaye yàgg ñu ko yëkkati ngir ñu doxal ak ñun ci yoon wu jub ci diine ak l'islam jaalee ko nag Sénégal ci kàddu rafet yi suba incha allah euh, ci seen benn émission waxtaanee ko di massaw Sénégal gi yëpp. mu ñaanal leen ñu continuer gàmmu gi. délégation boobu tey ñi ko jiite di ay bokk di ay wëllëre di ay xarit loolu la yàlla dogal tey ñu nangul ko ko fa tabarakallahu mu di bëccëg boo xam ni itam ki ko sos di Cheikh El Hadj Malick radiallahu taala anhu nangu nañu ni mësul a perdre temps benn minute ngir yàlla ak xeeñtu leeru yonent bi ak ndimbalu borom bi wax naa bu yàggul ma ni modestie moo tax mu daan wax bu ñu ko nee góor gi daara ju ne dem nga fa lu tax mu ñu bëgg a faire ijji waaw bëgg a faire ijji moo tax daara ju ne ma dem fa <coughs> dama soj daara ju ne dem na fa waaye modestie moo tax bu ñu ko ko laajee ni ko lu tax daara ju ne nga dem fa mu ni bëgg a fer bu ferul ijji kenn feratul ijji bu gisatul daara ji mu dem dem na ci daara ñu dàq ko boroom daara ja dàq ko moom Cheikh El Hadj ñu ne ko lu tax nga dàq ko mu ne parce que dafa mën poser question mu ne a tax ma ma jóg bëgg a xam lu ma xamul dinaa ko laaj waaye borom daara ja wax ko ni ko jéggal nañu la mu takk ay bagage am ñëw toog ubbi daara wax ni tiitaru taxul may jaay xam-xam waaye dama gisatu ku ma tëralal bind nde bu ma ko gisoon suba su ma xëyee tëral bind waaye comme gisuma ko nag li ma xam a kus néew ma seet ku ko soxla ma def ko ci dëndam boole ko ci sama jaamu yàlla waaye tiitaru taxul woon la, la défaillance technique est aussi vieille que la technique. waaw la automatisme yàlla rekk waaw mm-hmm. moom rekk du keneen automatisme la mu tëraloon ca booba ba léegi noonu lay doxe waaw Cheikh Haj Malick bëccëg bi itam am lu am solo lu ci waxoon wax ni ko gardeel mer war na bu bëccëg bi ñëwee nga fàtte mer ma ndax ki moom bëccëg bi du yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yooyu tax ngeen ñëw pour ndokkeel si kon lu ciy leer ak lu ciy barke yàlla nañ ko bokk yéen fa tabaarakallaahu mu eh, mel ni itam tubaab yi mu fi fekkoon te ngeen remplacer leen yéen ñu bokk ak yéen deret bokk ak yéen ak bokk tubaab yi dañ daan def bu ñu jaaxle dañuy ñëw ci moom wax ko seen jaaxle ci moom wax ko ko bu njëkk bi mooy tubaab yi dañ ko wax ni ko dañu bëgg nga waxtaanal ma paysan yi seen xaalisu gerte ni ñu ko yàqe bu ñu ko liggéeyatee ba jaay gerte gi ba xaalis bi tegu ci seen loxo ñu sakkanal ko ndax déwén la jëm waxtaanal noog ñoom ñu bañ a yàq xaalis Cheikh Hadj Malick wax ni sañu ko ñu ni ko lu tax mu ni parce que seen ñàq ñoo ko liggéeya seen bopp lew na leen mu ni te li ci gën a doy waar mooy yéen tubaab yi fu ngeen di tërale prix bi ngeen di jënd gerte baykat bi amul ku ko fa teewal mu ni kon nu mu ko neexee lay lekke xaalisam bu amoon ku ko représenté fa ñuy tërali prix gerte waaye dafay xëy rek dégg ñu ni dinañ jënd kilo bi ci nangam mu ni normalul kon du ci sañ wax bi ci des ñu wax ko ni ko dañu bëgg boo demee sa jumaa booy waxtaan ak nit ñi nga wax leen ñu wàññi ni ñuy consommer alcool xam nga alxamr ummul xabaayis l'alcoolisme enfantera tous les vices ñu ne ko boo demee nga waxtaan waxtaanal nag ñoom consommation bi ñu wàññi ko mu wax leen ni ñi ëpp ñuy consommé dañu ñëw sama juma mu ne leen te foog ñu seet alcool bi lu ko fii indi ñu seet yéen lu ciy seen responsabilité parce que yéen a koy jële tugal teg ko ci ay kaal ba mu ñëw Sénégal kon ñu seet yéen lu ciy seen responsabilité mu ne leen te man sëriñu daara laa mu ne leen aw bon gendarme aaya alquran laa mën a wax te nit ñi gendarme